sama gaay yi sama gaay actuellement ñu ngi nii ci réussite bi réussite bi démb fii moo gënoon tar ci Médina démb fii moo gënoon tar ci sànq waa bip jaar nañ fi waa bip laa lay wax nii jaar nañ fi léegi nii fi mu nekk nii militaire lañ fi wàcce militaire yi lañ fi wàccee ñi nga ànd ak waa DIRPA DIRPA soo ko déggee ñoom ñoo yor seen communication. ñu ngi zalone ci angle bu nekk oh oh oh oh rue 9 angle 8 booy taal nañ foofu rue 9 angle 8 taal nañ foofu mais gars ñi ñu ngi zalone ci kaw grande artère yi booy nangu ñu wàcc commissaire Sow dugg na rue 9 jëm côté corniche ñu ne sama gars yi ñu ngi taxaw nii. Sow mi ngi dugg ci biir koñ yi di doxantu ok mi ngi defaat demi tour Sow commissaire bi non non bàyyi mu gën sama gars yi ñu ngi xaar non rue neuf booy ñu ngi taal nañ foofu rue neuf angle huit rue neuf angle information yi ma jot léegi nee nañ ma Grand Yoff ma ngay yëngatu. ñu ngi may signaler léegi ne ma Grand Yoff mi ngi yëngatu actuellement là ñun ñu ngi ci rue 11 bi angle 6 juste rue 9 bi angle 8 foofu la boy yi taal foofu la boy taal léegi ñu jéem a avancer xool lan moo nekkaat ci kanam. ñu jéem a avancé xool lan moo nekk ci kanam. damay ban rajo xaw ñu ngi ci siis bi oto commissaire bi mooy romb nii commissaire Médina mooy romb nii mooy romb nii angle bu nekk delloo ziar waa Medina TV ziar nañ leen jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf waa Dirpa ñi ngi ci côté bi ah <laughs> mu nga Dirpa ñoom ñoom seen job bu ñuy dem armée bi rek lañuy ñuy àndal yaa gën a noow actuellement ne ko fii mi ngi dalagum mais xam nga booy comme bu ñuy provoqué dañuy taal benn pono ñaar foofu bu tàkkee gars yi dugg ñu roof leen ay galañ ñu génnaat roof galañ mooy bu ñu duggee ci biir koñ yi xeer yi jóg moo tax policiers yi nangu ñu dugg militaires yaa ngi taxaw ci angle bi rek di leen góolu booy tamit ñu ngi seen biir koñ yi kenn duggul seen biir kër yi nag. ñu ngi seen biir koñ yi gars yi ñu ngi seen biir koñ yi génn ñu ci kaw tali bu mag bi mais ñu ngi si biir koñ yi toog di xaar côté rue bi nag ñu ngi yëngal tuuti taal ba xam xool ndax gars yi dañuy réagir wala du ñu réagir mais militaire yi ñu ngi taxaw benn place di xaar xam naa dañuy xaar mu gën a yëngu wala bu ñu réagirul ñeneen ñi ñeneen ñi yëngal tamit waaw. waaw. am na groupe nit bu fële fële dafa mel ni ay civil lañ lee du yomb yee gars yi ay mbër lañ andi wépp ay ponkal lañ andi ñu ngi mel ni ay alkaati. gaa yi punkal lañ andi ñuy doxantu ci biir Médina bi yée du yomba du yomba tey ak rasulilah par groupe lañ def ay punkal waaw affaire bi nar ta yomb tey ay protège tibia sax gars dañ ko sol yé yé yé yé ay protège tibia sax tey gars yi dañ ko laal wala sama yeneen gars yi dugg nañ biir Dames gars yaa ngi na dugg biir Dames dugg nañ ci rue 19 bi jëm ci angle 4 bi duggaat nañ biir dugg nañ biir 19 dafa mel ni foofu day waaj a yëngu kon dafa mel ni mi ngi waaj yëngu alkaati yaa ngi noonu ñu ngi daw di dem na leen topp ba xam xool fu ñu jëm leen topp ba xam xol fu ñu jëm 19 angle 8 lañ dugg jël nañu rue 8 bi jël nañu rue bi am na groupe bu nekk ci kanam yom tam dafa mel ne ay civil lañ dafa mel ni ay civil lañ ji sama gars yi tey dañoo mer ah. yéé yéy yéy yéy yéy yéy waay ñii doo ay alkaati rek waay non yii ponkal nii doyen alkaati rek waay lii du dëgg waay lii am na lu ci rax waay lii du dëgg waay <coughs> ne ko lii am na lu ci rax waay ay waay booy buñ ci jàppa tey laa ilaha illallah yii tooni daa mer tey Antoine Diome mer na yéet teet teet teet teet teet allah naakira woo ma nag gaay li ñuy daw dafa bari dégg nga wiiw wiiw gi foofu mbaa jàmm la oto bii fay la fi ñu seenoon sànq muy tàkk fi ñu seenoon sànq muy tàkk la ci Rue Neuf Rue Neuf angle huit bi lañ seenoon muy tàkk actuellement fay nañ ko actuellement fay nañ ko fay nañ ko ba oto bip bi dugg ci biir koñ bi fay nañ ko oto bip baa ngi ci biir koñ bi ñu ngi dégage xeer yi ñu ngi dégage xeer yi fii rue 9 angle 8 rue 9 angle la côté parking scooter yi dégage nañ xeer yi mais am na benn barrière bu nekk suñu ginnaaw moom la ñu romb léegi

waa bip laa taxawal nii bip cay Medina ay Medina bàjjo bi laa ilaha illallah bip yee ñii keroog bi université di yëngu ñoo fa nekk ne ca kanam tey ñoom ñoo ñëw dugg ci Medina waaw waaw am na bépp am na police nationale am na militaire naka am na militaire naka am na militaire vingt-deux fan waxam fan la 22. ñu ngi avancé waat ñu ngi avancé waat ci angle bi ba léegi ñu ngi si angle bi ñu ngi toll rue sept angle huit rue sept ñoom tamit taaloon nañ ñoom tamit taaloon nañ fii yëpp kusum la am nañu sëpp seen balcon yi nii di moke gaay xool leen seen balcon yi ñu ngi kaañoo gaay sept angle huit bi taaloon nañ neuf angle huit taaloon nañ actuellement oto blindé bu bib bi mi ngi retourné mi ngi retourné kaw rue six bi gaay yaa ngi zalone mais booy ñi ngi nekk seen biir koñ yi beneen équipe bu police bi mi ngi nale ci kaw bu commissariat Médina ñi ngi ci rue sept bi jëm côté stade Iba Mar ñu ngi def ay ronde ci biir koñ yi booy loo am foofu Grand Yoff toujours actuellement booy li ñuy def ay affaire loo lambe la ñuy def dañuy taxaw seen buntu kër yi làqatu bu gaa yi fëlee ñu siif ay ay kuñ ci jàpp ay kuñ ci jàpp tàkk noonu buur gee fuy tàkk noonu ñëw nañ ci rue 7 bi rue angle 12 ñëw leen tafu leen côté rue angle 12 biir kusum ba léegi am na benn équipe bu dugg biir Dames ci rue 19 bi lañ duggee là actuellement ñu ngi dem vers stade Iba fan la non du mu bëgg a dem ñu ngi nekkaat ci kanam li may seen oto commissaire saw lay nduróol te état bi moom la saw la mu leen jox instruction yi commissaire saw mi ngi jox instruction yi sama yii si tali wi man di yii façon yi alkaati xaw ma fu ñu leen jëlee mbay fii fana loolu ma yi ponkal laa ilaaha illallah Thank yaa ngi waxtaan seen biir xool nu fa war a taajoo voilà vérifié ma vérifié ma nga déglu sama gars yi xala la ñu ay boy bu ñu jàpp waaye laa ilaaha illallaah ay xeetu ngato loolu ma ngato yi eh. lu na booy bu fi yàlla bañ ba nga génn fii tey dinañ la supp kànja dinañ la tiga dege dinañ la maafe dinañ la cu dinañ la dëxin yii lii doole doxul jaam wil bii ki rasulaay man ban groupe laa war a topp sax naa jaar ni naa aw nii comme kusum fi lépp di xewee na neex ay booy bu fi génn waay dinañ la bogo bogo dinañ la cuub dinañ la njaay cekke <laughs> xaaral rek xaaral rek e kaay siif nañ ña ngay siif yée ñooñu siif nañ dugg seen kër ay déggal ñooñ ca ginnaaw ñu ngi naan dugg leen seeka seeka gaay seeka gaay ñoom bu ñu taxawee rek dangay waaf ndax koo ci gis mi ngi tolli nit fa yàllaaw xoolal ma lii rek kon dangay seet lii rek laa ilaaha illallaah liñ naan comme guerre nag dëggantaan mi ngi nii xoolal ri onze bi déggal bunt yi ña nga naan karaj karaj doole doxul jàmm xaaral ma wàcc diggu tali bi walaay doole doxul jaam day ñu onze ma ne ko ñu onze fii mi ngi dal préfet yaa ngi ñuy dégg ñu ngi rue onze mi ngi dal mi ngi dal ay booy bu fi génn <laughs> la ilaha illallah yée yi façon ngi njaam bala ko yi façon njaam gëj naa ko gis ca làmba ja waaye na matuma làmb ji waay kay waaye na matuma làmb ji waay yi façon njaam non eh eh eh, eh, eh. di douze bi de dëggal booy ci kaw terrasse bi di ñaawalaate ay waay booy bay bàyyi leen tooj booy yow loo jëndi woon mburu ñu ngi laaj kum doon waaw ah. rue 13 angle 12 yee daw nañ ko rue 13 angle 12 am na kuy ñëw ne de mbaadu waaf ma ne mbaadu waaf day jël njool mi de yaa ngi koy laaj ci ñoom la seeni mbokk la seen mbokk la mu seen mbokk waxtaan nañ ba préfet mbaa mi ngi baax kay yaay la dugg nañu rue 15 dugg nañu rue 15 dugg nañu rue 15 ñu ngi 15 angle 12 wala ko 15 angle 12 jox ma résultat yeneen bërëb yi yow eh benn xeer ñëw na ci ginnaaw de ay waay booy yi bàyyi leen li def mbay ñëwal nii ay xeeri ginnaaw moom merci rek gis nga loolu dégg nga da ngay seet lii rek xam nga lii vraie provocation la xam nga lii vraie provocation la vraie provocation yi ñi ñi di leen romb nga leen di door xeer provocation dëggantaan a ngi ay xeeru lëndëm moom doo xam fu muy jóge xaaral ma taxawee nii rek al def nii rek dégg leen ñuy muucoo rek dégg leen ni muucoo rek ci lëndëm gi lañuy toog di muucu ay waay lii te booy doo leen génne rek xeex yéen tamit nag li ngeen di def amul sens génne leen rek di ngeen xam ne lépp ay dëgg ñi nga xamante ne koo ci gis mi ngi mel ni nit ah toll nu ko neex dama taxawee nii te côté bii yëpp ay xeeru géej la ñuy am. dama yée ay waay ay waay fi ñuy jaar fi la xeeri jënne woon waay yée ay ay ay ñooñu di wax dañooy xaañaate yii xaar xaar xaar leen ma boor wóoru ñu ngi leen naan wàcc leen bu ñu xefee dañuy yëg ci kaw terrasse bi ñu ngi leen naan ñu wàcc booy nànk ñu ngi leen naan ñu wàcc xamuñu fa xeer di jóge dama def nii ci suufu immeuble bi dégg nga. yi ñu ngi leen naan nañu wàcc. ñu ngi leen naan nañu wàcc terrasse bi ndax dañuy tiim gars yi di leen dóor ay xeer ci lëndëm gi te wóorul ñu ngi diggante rue quinze bi diggante 14 ak 12 gars yi jël nañu rue 14 bi. saa mu ngi leen naan ñu tëddi ñu bañ bu ñu xefee dina leen dóor lacrymogène seen kaw terrasse leen ñu wàcc ñu ngi dëgër bopp bu ñuy xef lacrymogène lañ leen di dóor keneen kaa nga naan fii la ñuy fanaan amuñu fu ñu fanaan waaye xeere rek laay daw mbay waay la ciri ci bi ñu ngi si 10 bi sax o fàttew naa ay waay ma ca wil kaw wil ñooñu di yërnu ci buntu kër gi mbaal nañ mbaal nañ maire bi da doon yëndu ba daw daanu da doon yëndu ba daw daanu lu ko da doon ba daw daanu xoolal lii rue dix la de ñu ngi nii bi de. ak loolu da doon yëndu ba daw daanu. kàlla maire bi ah maire bi xelam waaw. maire ñu ngay dem tëddi ah kay maire dama tëdd yuuxuy day laa ilaaha illallaah moo yey ah ma buur day ruux

boo jógee Blaise Diagne jaar Marakaana romb Marakaana jaar terrain Jaraaf génn ridis rëppatal gaa ngi nii <laughs> yaa cey Médina ma ne ko cey Médina eh. ndeysaan booy Médina yi li daloon Yaya Jammeh leen dal dañu weer dañu woo guerre bu mu ñëw ñu daw ba ko wooy ah wooy bee di waaj xoolal xoolal xoolal gaa yi ñee ci mbaam mi wala ñee ci mbaar mi wala jaakatu xaalis la sa waay siif na de borom may bi siif na de paa siif na siif na paa siif na bi siif na ay góor gi tamit bu ñu xamee ne da ngay ñëw ngay siif paa baa ngi toog yor seesa la seen gaa siif wuyul mon père siif na ay sóor leen kaw terrasse de ma ne ko sóor leen kaw terrasse de beneen contingent baa ngi ca kanam kii xanaa ministre de l'intérieur la gars yi dugg nañu ruq ba de ko dugg nañu ruq ba de dama feexaloo si biir dégg nga moo gën booy mun na daw fel la fii fekk na fel fii warul quoi duggal rek tabaarakàlla kay duggal duggal yee borom scooter bi am na gan waaw ban heure la jot minuit jotagul ah match bi teel na tas de booy xanaa ci ginnaaw oto yi la ñuy xoolal booy ni ñu def ci magasin yi dañuy làqatu bu ñu ñëwee ñu dawaat ay waay booy génn leen tay noonu lañ tali jekko bi ah kii kana ah? jàmm gën si Kàmbaaw info yi ñu jot léegi jàmm gën si Kàmbaaw commencé na yëngatu ban rajo jàmm gën talimam jaara foofu commencé nañ hmm. yi dina mbaal hmm. ci leen terrasse bi ñu naan suñu kaw terrasse bàyyi ñu wàcc côté 22.

sale ci kanaal bi canalu marché mercredi jàpp rond point Sam ña nga léegi ña nga léegi laat waaw waaw maa ngi nii ci côté Blaise Diagne bi vingt neuf vingt neuf angle vingt deux waaw waaw ok ok ok ok ok Talla 29 angle 22 waaw waaw. gaa yi di 39 bi gaa yi ñu ngi taxawal seen buntu kër yi. ñu ngi taxaw seen buntu kër yi di kaañoo gaa yi. mais ñu ngi ñuy signaler rue 29 angle 22 côté station bi 29 angle 22 côté station bi vingt neuf angle vingt deux côté station bi boo yaa fa tegoon ay bagage pour waaj a taal léegi lañ ñu ko signalé Blaise Diagne bi mu ngi nii weex taal set wecc am na oto yuy daw ju nekk tamit yu ñëw suñu kanam police la police la police la ba tey 29 avril 22. xaw naa la ko 29 avril 22. Talla. waaw 29 avril 22. waaw waaw war naa accident. rue 29 angle 22. waaw ñu ngi def 37 cey lii ay waay cey lii wéy pep pep pep pep ay waay booy buñ ci jàpp waay ay waay ay waay xoolal ma lii ay booy buñ fi jàpp laa ilaha illallah ponk lii na ma dóor booy bee ci angle bi am na problème de non moom léppam ñëwul sax garaawul moom léppam ñëwul léppam ñëwul waaye namatuma làmba ji waay façon njaam Cho. Cho. Cho. Oh. waay waay ka am na gan waay booy tëddal ndeysaan couché

mbedd mi ah ñu taal ko muy poy muy nag mbir mu doy waar waaye nag tamit beneen phénomène boo xam ne man jaaxal na ma mooy ba ma fi ñëwee ba léegi lu mel ni roog force de l'ordre seen am féenu ma ko tey dégg ah, nga xam ne ñoom ñooy parce que nee nañu ni xam ne noonu la gars yi di taalee euh, safara si fii daf leen di sonal te ni ko waxee sànq rek xet gi nga xam ne moom moo fi dégagé wu fekkee na nit ki lii du kuy leen ma nag sama gaay maa ngi posé ti nag maa ngi posaat may leen ma tuuti ma ñam dara ok ba si kanam tuuti rek ma xool beneen zone à tout à waaw ma gis nee waaw ma gis

oto baa raxas di ñëw de dàq ji nañ de dàq ji nañ de dàq ji nañ de yée dugg nañu rue 27 <coughs> rue 27 angle 24 booy 27 angle 24 bii mu ngi yëngatu de.